ma dikk nag ci li nga xam ne it moo waral ndaje mi loolu mooy dimbale nit ñi dimbale nit ñi ci juróomi anam dimbale jaame yàlla yi nga xam ne mën naa am sama bët bu ma leen tegoo di leen xool sax xamuma ñu ñan la doon boobu mooy def ca yàlla tax mu leer na ne li jëmm ji ngay xool xamoo kan la nga dimbale ko ci yàlla tax beneen ba ca tegee dimbale ñoo xam ne ñii dama doon ànd ak ñoom ci yëngatu ci beneen casquette bi muy politique mu leer na ne ni ñii dama àndoon na ñoom dimbale ñeneen ñoo xam ne nii it ñoo ànd bokk ku ni jàppale ñaari anam la nag yu bokkut ñoo xam ne ñoo bokk di ànd ku ni jàppale kooku it ñu war koo taxawu parce que xam nañ ne ñoo bokk ànd di jàppale koo xam ne kenn la beneen ba ca tege dimbale li nga xam ne mooy donga daara yi muy daara alxuraan yi ci ñun ñu nekk ay doomi daaraam beneen ba ca tege mooy dimbale dëkkandoo yi nga xam ne dama bokk ak ñoom koñ bi lii mooy juróomi dimbal yi ca yàlla rek tax ak ragal moom dama koo génnee ci man ba ma amee juróom-ñaari at ba ma làmbee sama gauche làmb sama droite fu ne ma xool ci sama jëmm munu ma ne ana ak ragal mi ngi nii boobu laa ko génne ci sama bopp ma bëgg a wax tuuti ñaari baat wax ngeen ko ma wax ci dëkk bi wax ci président ñu tëj ndaje mi dëkk bi mooy na leer man sëñ Modou Bara Dolly dama engagé wu ci côté yëpp lu ne maa ngi koy dégg lu ne ñi koy wax ngir yàlla ngir jëmmi président Macky Sall ca it du ma arrière ci loolu li feeg mi ngi bëgg rek may ànd ak moom waaye na leer politique politique lu tudd bi may wax ak yéen dama yëngal sama mbaxana na leen sama casquette politique ak sama casquette diine. bu dee sama casquette politique duutuma nangu mukk ci dëkk bii di Touba ñuy nangu di tànn keneen ku sant Mbàkke ma ñëw fekk ma fi ma fekk leen fi yéen ñu ko yëkkati di ko teg sama kaw kooku moom jeex na dama leen koy wax mu leer nañ parce que nag nit ki amuñu du boppam te it lii méngoo ay nit ñu war koo mën a wax bu dee ko sant Mbàkke bu dee keneen nag. koo xam ne nii xëy na ñoo bokk terrain bi parce que li may wax rek dafay leer sama xarit sama doomi baay sama doomi bàjjan bi ko président di ko teg ci dëkk bi président damaa woo ma toog biroom mu ne ma damaa bëgg a tànn Serigne ab Abdoulaye Gaynde Fatma ma ne ko bis ni ki tey takku naa ànd ak moom jàppale ko bi li nga bëgg nga mën ko am ci dëkk bi waaye nag booba booba ñan laa jàkkaarloo woon. ma jàkkaarloog samay frère samay frère laa jàkkaarlool bi ma jàkkaarloog samay frère yàlla dogal lim dogal yàlla dogal lim dogal ma nangu ko ñëpp dem nan ba ñuy def kuur ba ba ñuy def recours ba mais no man ak Abdou Bakki Ndaw ak ñin àndaloon ñoo ko dem defi ba yàlla def ñu gañe ñu ma nangu ko waaye nag jot na ci tey nag kon ah kum mën a doon buñ ko nañ ko nommé ministre wala ñu nommé ko directeur waaye nag la Matar waxoon nan ñuy laaj xalaat ndax nag laaj xalaat day baax ci lu man di doon donte président moom buy nommé mën naa jël décret boppam def ko ndax moo ko yore waaye nag laaj xalaat lu baax la bu dee ci politique nag man ni may amee sincérité ne bu dee ministre la war a directeur la nan ko jox ndiw diw amee dafa war a am sincérité bu dee politique mu ne mënuma ko nan ko jox sëñ Modou wala ñu ko jox keneen na leer dama bëgg mu leer parce que am naa sincérité ne du ma nekk directeur am naa sincérité ne du ma nekk ministre loolu moom am naa sincérité wax ko parce que mënuma koo doon waaye nag politique moom ci terrain bii ñu bari ci keppaaru sama waajur ca lañ ko jàngee muy sëñ Bara Dolly te ba léegi si ki tey mën nanoo wax ne cent pour cent wala cinq soixante dix pour cent ci politique doonte ñun responsable yi tey la ñu président war a jox bu ñu ko joxoon dooleel ñu mën na noo nangu ci dëkk bi man de waat naa ko ci alxuraan mi ma yaakaar ak weeru koor gi bu ma déglu woon teg teg ñu fan ñu war a teg bu ma xaatimee li may xaatim élection yi ñëw barki sëñ Tuubaa ñu gañal ko loolu lu ma leer naa ñu la cop loolu mu wax benn responsable bu ko mën a waat amu fi mais man mën naa koo waat parce que xam naa naka la xam naa lan la xam naa fan jaaroon ak Ablaye Wade ba gañal ko ba gañal ko socialiste yi waaye mbir mi dafa war a leer mbir mi li ci métti mooy maanaam da nga gis ab sëriñ bu toog benn place maanaam maire yëkkati kàddoom wala ab politicien bu yëkkatee kàddoom yël ay xeer ak i moon jëmale ko ci président boo ëllëgee nga gis ko ñu yëkkati ay doole di ko jox waaye ana ñun ñun ñi ko doon défendre ana ñun ñun ñun ñi ko doon xeex foofu laa am lu may tënk ma bëgg leeral ne ñun ñi jàppale président di ko défendre buntu lan boo xam ne ci biir dëkk bi képp ko war a liggéeyal président rek kenn liggéeyal ko tax buñ sañoo nga jaaree ko ci ñun loolu na leer